mbokk yi ngeen jëf seen ànd ak TFM télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës àtte Khalifa Sall euh, moom ak euh, ñi koy layool ñi ngi ci kanamu tribunal di sàkk ñu neenal daan yiñ ko daan ci àtte yu njëkk ya daañ fa fekki foofu ca tribunal suñu ndaw Alassane Ba ba léegi ci wàllu xibaar yi chantier terre bi am jafe-jafe dafa bloqué jamono ji ay way manifesté ñu ñu yëkkati ay commerçant lañ di sàkk ñu dàmp leen euh, tension am na fa danañ fa fekki Salif Sow As Malick Diop ci banlieue ba ñoo ñu fa toogal inauguration autoroute Ila Touba tey ci ngoon bu ñetti waxtu jotee ci teewaayu njiitu réew meek xalif général euh, des euh, Mourides euh, muy infrastructure boo xam ni dugal nañ ci ñeenti téeméeri milliards ak lu teg dinañ ci indi ay leeral yu yaatu ci biir xibaar yi dinañ waxtaanee it ñaari junni ton ceeb yoo xam ni ca Rosso Sénégal ña ko béy jaayuñu ko ñuy sàkku ci nguur gi mu jàppale leen ngir ñu jaay ceeb boobu la ko waral gis nañ ni ceeb bu ñuy jëlee bitim réew jéggaani ko di ko dugal ci biir réew mi moo leen euh, indil ay euh, jafe-jafe dinañu jeexale li ci yéenekaay yi ak euh, Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf seen teewlu. niñ leen ko waxee ci boppu xibaar yi ca tribunal la ñu naan coow dem ak Alassane Ba ñi ñu fay toppal àtte uh, Khalifa Sall ci kanamu cour suprême ak ay uh, layookatam fu ñu toll Alassane Ba ñu ngi lay nuyu. Uh, Pape Abdoulaye Der maa ngi lay fay. Pape Abdoulaye Der. waaw maa ngi lay dégg. ni nga ko waxee kon euh, mbir mi door na depuis daanaka euh, fukki euh, waxtu ak benn bi mu jotee ca suba kon jàppal ni ñu ngi koy layoo ci jamono ji wante bu ñu ñëwee ci cuba bi mu dooree nag dafa mel ni kon Amadou Bal mooy président bu chambre criminelle bu cour suprême ak juróomi magistrat yi nga xamante nag ñoo nekk ak moom war a examiner lu toll ci juróom-ñaari pourvoi jëm nag ci euh, caisse d'avance bi bi mu tàmbalee comme ni ma ko waxee nag daanaka ab xeex la jëm ci procédure bi lañ ko tàmbalee diggante euh, défense bi ak ville bu Ndakaaru euh, wante itam diggante état bi ak président chambre chambre bi mu jëm nag ci sàkku ji na sàkku nag ñu boole Pape Abdoulaye Der Euh, lépp li nga xamante ni recours la xalifa sal def ko wante itam ñu sàkku ñoom avocat yu layul xalifa sal euh, sàkku ñu renvoyé audience bi wante loolu nag euh, président bi dafa finalement dafa jël rek lépp benn pàcc ci recours yooyu le mu boole leen wante itam gàntal li nga xamante ni moom la avocat yu Khalifa Sall doon sàkku bi onze heures quarante neuf jote nag ci la ñu suspendre audience bi lu toll ci fanweeri simili want nag tàmbali na ci jamono ji nag lecture arrêt bi la ñu tolloon Euh, lecture arrêt bu fanweeri fan ci weeru août bi nga xamante ni Demba Kandji amaloon na ko jëm nag euh, ci euh, procès en appel bu xalifa Sall daanoon ko sax confirmé woon jugement première instance boobu juróomi atu kaso pour Khalifa Sall wante itam amende moom nag solidairement lañ ko waroon fay muy un virgule huit milliards yu franc CFA ci suñu koppar Pape Abdoulaye Der boobu nag pourvoi bu Khalifa Sall itam ñu ngi ko doon liir ci jamono ji nag contre arrêt boobu le ndax dafa bëgg ñu casser Cour suprême casser arrêt boobu ji nag xamaguñ ci dara mu ngi wéy ah, ci lañ tolloon kon Pa Abdoulaye Der jàppal ne ci jamono ji rek juróom-ñaari pourvoi la ñu teg ci taabalu ah, magistrat bi di ah, président chambre criminelle bu cour suprême bi amadu Baal mu war ko saytu nag ak équipe am bi wante ñi nga xamante ni nag ñooy soutien Khalifa Sall ñëwoon nañ fi teel sax daal di dugg ñenn ñi feesal nañu cour suprême bi ñeneen ñi nag xaar ci biti ak kaaraange gi takku ji fi nekkoon wante ci jamono ji jàppal ne dal moo fi am ñi ëpp daanaka ñibbi nañ seen kër Euh, taskatu xabaar yi itam jotuñu dugg ci biir ñu ngi ci buntu cour suprême di xaar ñoom itam euh, bépp xibaar bi nga xamante ni Pape Abdoulaye Dar dana rote ci procès à pour euh, pourvoi en cassation bi nga xamante ni caisse d'avance dossier caisse d'avance ñu ngi koy amal boobu ba léegi Pape Abdoulaye Dar. jërëjëf Alsane Ba mu mel ni pënd bi wureegul ci coow loolu ndax ak àtte bu mu mënti doon bu tukkee ci cassation bi cour suprême di àtte jamono ji ki nekkoon maire bu bi ko tab di coalition taxawu Sénégal gis nañ ni candidature Khalifa Sall lu wér lay doon la waral ñu gisee nu ni mel mooy euh, danañu am possibilité def lañ naan a euh, fin de rabat te loolu day acc bépp atte donte jàpp nañ ni cassation bi Cour suprême moo sës rëkk dañ doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom waa taxawu Sénégal Ibrahima kan ci leeral. ay waxtu yu néew des laata nag ñuy ubbi jugement en cassation bu Khalifa Sall coalition bi nga xamante ne moom moo ŋànk nag candidature am di yaakaar ne droit bi dinañ ko fa wax donte sax amuñu ci yaakaar taxaw Sénégal jàpp ne li gën a am solo moom mooy samp ndënd bu Khalifa Sall ci élection yi. candidature Khalifa Ababacar Sall dafa am euh, dafa lëkkaloo ak li nga xam ne moo am ci kanamu euh, Cour suprême amul dara lu leen boole. candidature Khalifa Ababacar Sall fi ñu toll nii amul kenn gannaaw yàlla ku mën a wax ne baaxul. taxawu Sénégal jàpp sax ne même bu fekkee ne cour suprême dafa condamné xalifa sàll lu ni mel mënul am benn rëq-rëq ci candidature am. cour suprême bu ko daanee yoon may na Khalifa Ababacar Sall ak ñamu bokkal mbir mi ñu def lii tubaab di wax rabat d'arrêt rabat d'arrêt boo seetloo ne ci ni ñu la àttee ci cour suprême dafa am njuumte boo xam ne dafa nekk ci procédure bi yoon may na la nga jël at àtte boobu nga attaqué ko par une procédure de rabat d'arrêt attaqué bi nag da nga ko war a def ci weer diggante bës bi ñu la joxee décision bi ci weer nga am pour def ko. ci lu jëm ci rabat d'arrêt googu nag bu fekkee ne xalifa sàll Cour suprême daf ko teg ay daan taxawu Sénégal jàpp nag ne nguur gi mu ngi ànd ak ay juriste ngir waajal ab campagne de communication juridique ngir nax askan wi. gis nañu ne nguur gi dafa dem wuti ay ñoo xam ne dëgg la seen xam-xam màcc na ci yoon waaye dañ leen am liggéey bañ leen sant pour ñoom ñu dugal ci bopp askan wi ne rabat boobu du nekk loo xam ne day tere. décision bi ñu exécuter ko maanaam du tax décision bi. du waaw du téye ab négandiku donc te loolu amul. ci fàttali euh, dossier candidature bu xalifa Sall ci présidentielle gi nag déposé nañ ko ci conseil constitutionnel ba noppi wante laataa loolu nag xalifa Sall dina jàkkaarloo ak cour suprême. Ibrahima Kane wax ci leneen ak chantier terre bi am ay jafe-jafe jamono ji ndax ay way euh, manifeste commerçant yu ñu yëkkati ci yoonu saxaar soosu war a dem ba jam ñaajo ñu jàpp rek ne war nañ leen dàmp laata ñu leen di euh, toxal tension bi rëy lool Salif Sow Asmalik Diop ci leeral ñaxtukat yi la yóbbu nañu liggéey bi ci train express régional bi fi tolloog marché bu caaro yi taxawal ñu bloqué liggéey bi ñu bien xañ ñu lu bëri loo xam ne gisuñu suñu bopp te dañoo bëgg président a gaawe fii nag fii ak la 30 may nekk fii ak la 30 su fekkee jógu ci bu ëllëgee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 inauguration autoroute Ila Touba tey ci ngoon la bu ñetti waxtu jotee ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall ak xalif général kullu murid muy jumtukaay goo xam ni euh, danañ ci mën a daw waaye def nañ ci ñeenti téeméeri euh, million quatre cent six milliards kon jéggalu euh, ci ñetti at lañ ko tabax dem beeg dikk bi it jàpp nañ ni ku ci dem dinga joxe junni booy dellu si bëgg cee jaar fay junni muy tarif bi nga xam ni moom la ñu jàppagum dañuy dem euh, ba njaareem ak diwaan yi ko wër euh, fekki fa Babacar Diouf euh, kenn ci ñu ñu toogal ngir tamit toppal ñu inauguration boobu Babacar Diouf ñu ngi lay nuyu. di la fay Pape Abdoulaye. alors wàccaay yi fu mu toll ci inauguration boobu nga xam ni ay waxtu yu néew moo dox suñu diggante. waaw waajtaay yi fi mu nekk nii def naa lépp yemb na li nga xamante ni moom moo waroon jëm ci eh, préparer arrivé ki nga xamante ni mooy président de la république ak xalif général de des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou lépp yemb na fi nga xamante ni moom moo di diwaan bi pour eh, li nga xamante ni moo di inauguration bi ni nga ko waxee mu di yoon wu gudd gudd ba xool eh, bu guléet ci Sénégal ñu am autoroute bu guddee nii teralu ci cent quinze kilomètres yoo xam ne nii mën nga ciy daw vitesse maximum nag li ñuy conseillé mooy cent dix kilomètres par heure ñuy nangu ci autoroute fi mu nekk nii nag li ñu mën a wax mooy ñëpp ñu nga xam ne ñoom ñoo ci waroon a nekk ñu ngi ci def li nga xam ne moo di liggéey bi pour dal ngoon ci quinze heures wala 16 heures 30 sax ñu mën a joxe li nga xamante ni moo di autoroute bi wante nag am na ay euh, jàqare yoo xam ne nii ñu ngi ciy commencé jub parce que yenn ci euh, yi nga xam ne ñoom ñooy chauffeurs yi nekk ci diwaanu Bambey wala ñu nekk ci diwaanu Diourbel ñoom seen jàqare mooy fan la ñuy jaar ba yéeg ci loolu nga xam ne moo di autoroute bi ndaxte nag lii euh, taqale dëkk yooyu ak autoroute bi amagul mu di tali yoo xam ne nii defar nañ ko ba ñuulal ko ay rang-rang rek ñoo fa nekk yoo xam ne nii mën na laa may nga dem ci autoroute Ila Touba boobu te nag rang-rang yooyu boo ci yéegee yoree yére bu weex wala yére bu set war a dem ci xew wala lu ko demee dafay xaw a doy waar ndax dax dafay war a tilim mais nag lii jëm ci njëg bi tamit ñu ngi koy laam-laamee ñu naan euh, ñaari junni pour dem ak dikk loolu tamit euh, ñenn ñi nee nañ cher na ba tax ñoom daal ñu ngi ñaan nguur gi ñu indiwaat ci ak oyofal goo xam ne ni dina mën a tax askan wi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu def autoroute bi ñu mën cee jaar beneen mbir mi nga xam ne moom la askan wi ñaawlu ba moo di li jëm ci wàllu passage yi passage yi naam waa auto Ageroute nee nañ cinquante quatre passage am na ci li nga xamante moo di autoroute bi wante ba léegi askan wi ñoom daal ku ci nekk dafa bëgg dëkk ba nga nekk nga am foo xam ne di nga mën a yéeg wàcc li nga xamante moo di autoroute bi wala nga jaar ci suuf jaar ci suuf bi sax naam xam naa doon na dana jafe wante yéeg bi wàcc nga xam ne di nga mën a romb autoroute bi loolu nekk na loo xam ne nii yenn ci askan wi ñu ngi koy euh, ñe bëgg nañ nguur gi wala ñi nga xam ne ñoo yor ngànku euh, autoroute ci Sénégal ñu indi ci jaafara euh, Pape Abdoulaye jërëjëf euh, Babacar Diouf euh, dinañ dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci inauguration autoroute euh, Ila Touba boobu ci kanam tuuti ci teewaayu xalif général kullu murit waaye it njiitu réew mi Macky Sall wax ci leneen ak ceeb bi lu toll ci ñaari junni tonnes mi ngi des ci loxo ñëkk a béy ca Rosso Sénégal daan ni dañuy manifester yëkki it ay kàddu ñaxtu yoo xam ni nguur gi la sàkku mu jàppale leen ngir ñu mën a jaay seen toni ton yooyu euh, des seeni loxo ñaari junni ci ton kon euh, ci fàttali euh, ndax jéggaani bi gis nañ ni moo tax seen ceeb boobu jarul reportage Habib Seck Ousseynou jóof ak ñii di baykat yi nekk ci wàllu rawatina ci Sénégal nii la ñu génnee wane seeni i naqar xam le ni ay junni junni tonn ceeb ñu ngi file ci diwaan yile te kenn mënu ko jaay ñoom nag ñu ñaan nguur gi mu jël cay pexe. kon yoo xam ne mu ngi si mu ngi si magasin yi ñu ngi stocké am na machine yoo xam ne sax amatuñu xaalis bu ñu jëndee ceeb ñu ngi tëj mënatuñu liggéey kon nag du ñu bëgg mu dimbaluñu ñëw fexe décanté situation bi ndax situation métti na la bëgg mu dimbaluñu si ceeb bi mu jar. ndax ñun luñu bëgg tey si tey ñu ngi liggéey fi nga xam ne plus de 30 personnes borom machine bu nekk am na ko ay emploi yoo xam ne ñu ngi taxaw am na machine yoo ne ñu ngi tëj liggéeyatuñu importé bi moo tax mun ñu jaay bu fekkoon importé bi taxaw na tuuti dina mën a jaay suñu ceeb kon du ñuy ñaan Macky Sall mu dimbali ñu si importé bi mu taxaw ñu mën a jaay ceeb bi lu waral nag ceeb bi nga xamante moo nekk ci magasin yi jarul ñu ni bokk na ci ceeb bi nga xamante ni moom la ñu autorisé mu jóge ceeb bitim réew. lu ceeb lu ceeb lu waral ceeb bi jarul ceeb importation bi ñu ñu ñu fi indi ceeb euh, boo demee tey si tey nga xam ne suñu naataangoo yu nekk fii ñu frontière ñoom muy Mauritanie bu heure bu demee ba seen ceeb ñor ñoom dañuy bloqué frontière bi benn ceeb dootul demati Sénégal nag pourquoi pas ñun ñuy ñuy liggéey ah te ñoom mënuñu bloqué ceeb bi ceeb importé bi ñun ñu mën a jaay suñu ceeb. yeneen jafe-jafe ñoom ñi nga xamante ni ñooy bojj ceeb bi leen jànkoonteel nañ ko jëm ci wàllu bi. baaxul day lakk bu lakkee Senelec topp la ne la da ngay fay da nga lay fa estimer ay factures yoo xam ne dafa seer kon nag nañu dimbali ñu bu baax si si lépp loo xam ne si liggéey bi la mu dimbali ñu si bon suñu liggéey mën jëm si kanam. fan yii yëpp jaayuñu dara ceeb baa ngi nii sunu sunu loo xam jënduñu ko facture courant yi seer na réewum Sénégal nag bëgg dem ci autosuffisance en riz waaye nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci wàllo nee na ñu jafe-jafe yi ñu am ngir mën a jaay seeni ceeb loole nekk na loo xamante ni naqari la leen te bëgg nañu nguur gi jàppale leen ci. Ousseynou Diop euh, jërëjëf bu ñu jógee ca diwaan boobu dañuy dem ca Madina Wandifa foofu euh, lycée ba dañoo jaaxle ndax euh, ay xale yu jigéen ñuy daanu rab. ba tax na muy si euh, way euh, professeurs yi di seen euh, di seeni parent parents d'élèves waaye it élèves yi seen bopp inspection médicale ba ñëpp ànd jaaxle Moussa saar moom moo jiite lycée bu ma Madina Wandifa laaj ak tontu dox na digganteem ak Bakary Konté mu jinne Maymuna la comme ni ñu koy waxee communement dans les écoles daf di loo xamante ni day daaneel gune yi rawatina gune yi nga xamante ni ñu ngi ci classe yu ndaw yi yi nekk cinquième quatrième dañuy jékki-jékki rek dégg leen ñu yuuxu daanu mel ñoo xamante ni ni daal kenn xamul leen dal. ren it mu commencé waat moo mu jaaxal te loolu day yàqal dafay yàqal xale yi seenum njàng. nañoo trouver ay solution woo nañ parents d'élèves yi waxtaan ak ñoom école bi euh, structure yi nekk ci école bi yëpp daje nañu waxtaan. pour trouver ay solution demoon nañ sax ba woo ay marabu pour ñu waxtaan ak ñoom ñu dimbaluñ fi waaye daal mbir mi daal wax dëgg fa yàlla euh, mu ngi fi ba tey boo boo boo boo deful woon ndànk sax léegi nga dégg ku yuuxu ndax dañuy jékki-jékki rek kenn yuuxu ki ci mujj démb ci ngoon la démb ci ngoon dafa jógee cour EPS rek daal di yuuxu daanu ñëpp ñoo jàpp ko tous les jours la léeg-léeg ñaar ba ñett ñoo naan tëll daanu bu ko defee kenn du xam xale ya bàyyi njàngama ñii di jàpp prof bi jaaxle loolu la ñuy dëkkee tout le temps man nag loolu li tax mu gën ma dérangé mooy dafa commencé di di di handicapé njàng ni ndax imagineel classe boo xamante nii ay bés bu jot kenn daanu wala ñaar xale yi au lieu que ñu jàng ñu koy jàppale ñii di xooli ñii di xooli sëriñ ñii woo parents yi xoolal ma lool rek dafay yàq njàng mi ak njàngal mi vraiment daal loolu nekk na loo xamante ni jaaxal nañ te ñun xamuñu nu ñu def ca Tëngéej conseil départemental ba taxaw na ci saafara jafe-jafe xale yi nga xam ni dañoo ànd ak laago euh, ci wàllu ñàngale euh, bi waaye it euh, formation lëkkaloo nañ ceek département bu nekk ca France ba tax yaakaar nañ ni danañ ci am taxawaay gu am solo ci leeral Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. gannaaw bëggu primaire nag xale yëpp jote ci terewul nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne ni am na ci jëm ci xale yi nga xam ne nii dañoo amee laago te mënuñoo dugg ci yooyu lekkool sabab bu ni mel moom moo tax ba ñii di autorité départementale bu Tëngéej inspiré woo ci modèle français bu département bu AN ngir taxawal kuréel goo xam ne bi day ëmb ay jegeñaale ak ay wayjuru xale yi nga xam ne nii dañoo amee laago. li tax nag mu am mooy jéem a seet ñun ku nekk la nga am bu dee cotisation téeméer wala ñaari téeméer ñu dajale bu ñu amee euh, ñu ñu mën a dimbali jàppale ñu ah ñu taxawal loo xamante ne lii bu état bi jàpp fii ñun ñu jàpp fii mu di département bi départ conseil départemental mu mën a joxe subvention commune yi ñu def ko mais daal dañuy compter suñu euh, doole d'abord ku ñu si fekk jàppale ñu pour que ñi nga xamante ne yàlla def leen natt ñoom ay doom ak njaboot yoo xamante ne dañu wàññeeku. mais ñu mën leen jàppale ba ñu mel ni doomu ñëpp. gannaaw bu mu ñëwoon teewe si ndaje mi kii jiite kuréel yi nga xam ne nii moom moo ëmb waaye laago Sénégal yëpp jàpp na nag association boobu du association bu ëpp. woy laago yi Sénégal bi ñu defee jàngat gis nañ ne lenn ci jafe-jafe yi gën a métti yi ñu doon jànkoonteel mooy problème wu njàng mi maanaam ni ñuy def pour que xale yi nga xam ni dañu amee laago ñu mën a dem ci école yi mën a dem ci centre de formation yi yi. suñu centre de formation yi préparé wuñu leen pour ñu mën a euh, jël ay xale yu amee laago jàngalekat yi aussi ci seen formation waaj waajaluñu leen pour ñu mën a jël en charge ay xale yu amee laago ba ci matériel bi ñuy jëfandikoo ci école yi sax ak ci centre de formation yi adapté wul loolu moo tax mu bari ay xale yu góor yu jigéen handicapé yooyu gis ñu ne ci mbedd mi di taxawaalu di yalwaan. lii di équipe bu beesu association boobu ndax xam la ne ne dinañu tabax ak kër goo xam ne gii xale yooyu nga xam ne ni dañoo amee laagu danañ ci dal jëm ci seen wàllu njàng waaye tamit tàggat leen ci wàllu métier. ñu dem ca médina Yoro Fula Juno dox na ci diggante médecin chef district sanitaire ba ak euh, way grève ya ñi ñi ñi bank seen loxo ci grève wu ànd gësëm bi ba tax mbir yi mujj tàbbi ci euh, takk der yi ak euh, ca préfet ndax jàpp nañ ni ay xupp yoo xam ni médecin chef bi xupp na leen ko jëmale ci ñoom ab Ablaye jàlloo ci leeral docteur te ñu bokk ci kuréel bu ñu duppee ànd gësëm te ñu ne woon en assemblée générale ca ëtt bu jàkkaarloog centre de santé bu Medina Yoro Fula ay gendarme ñoo ñëwoon ca seeni boobu ndaje. ñu ñëwee tey euh, euh, Medina Yoro Fula di def assemblée générale euh, si si gendarme yi ñëw nee nañu préfet dafa ne ñu arrêté sonorisation bi ñu arrêté bon. bon bu ñu bu ñu ñu dem wuyu ji préfet parce que moom mooy moom mooy njiit ci département bi ñu dem wuyu ko wax ko lu tax ñu ñëw fi maintenant refula fi ak lan mooy suñu tànk le préfet mu comprendre ñu mu xam ne ne su suñu yoon leen nekk mu ne waaye lu des ci sonorisation bi war ngeen am autorisation spéciale li waraloon seeni ndaje ca Médina Yoro Fula mooy ñu jaamaarloog médecin chef district sanitaire bu Médina Yoro Fula mi ñuy tuumal ne day xoxotal ay liggéeykatam yi bokk ci mouvement de grève bu waa santé di amal lu ñuy ñaawlu rek mooy attitude ak comportement médecin chef du bi parce que lii du xeex bi nekkul diggante xeex entre le SAMES ak le SUTSAS nekkul xeex entre les médecins ak les infirmiers et les sages-femmes donc ñun ay paramédicaux leen ñu ñuy réclamer suñuy gëdd suñuy droit donc ñoom bu ñu si jàppalewul waruñu nekk dañuy xoxatal dañuy bundu xatal di dem di menacer collègues yi di leen ne dañuy résilier contrat loolu du dem tey du dem suba duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. moom médecin bi biñ ko laajee ci li mu xam ci kàddu yi ni mel daa wax ne du leen tontu waaye dina leen xamal ne amu fi kenn ku mu fi xoxotal te dina yóbbu fu mbaxane doone benn képp ki ko sosal dañuy dem ba diwaanu cees rawatina di dëkk buñ naan Sancub Nong mi ngi nekk diggante euh, commune Taïba Ndiaye ak Daaru Khoudos ca département bu Tiwaawan doxu ñaxtu juróomi village ñoo dajaloo def ko lépp ngir euh, ñaxtu ndax gis nañ ni jumtukaay tumuranke nañ lool bokk na ci case de santé bi nga xam ni ay at a ngi nii tëj na waaye it guddi gi nelawatuñu bay xandoor ndax euh, jaan yi leen di tiital Cheikh Anta Diop say latir yëpp di dëkk boo xamante ne daanaka ñaari commune ñoo ko wër di commune ab Daaru Xuddoos ak commune ab Taïba Ndiaye askan wi yeewoo fii de ñoom ñëpp ràngu ay morso yu xonq doon dox doxam ñaxtu ngir fësal seen naqar nee na seen dëkk bii de amul courant. ñaari maire yi ñu composé muy Magor Kane Alé lu ñu bëgg nañ ñu ko defal courant la ñu bëgg courant la ñu bëgg sori wuñu am nañu ñaari forage kon jaaxle wuñu ndox li nu jaaxal mooy courant bu dafa ñëw ba jumnu mel ni danoo bokkul station baa nga ne même pas euh, dix mu dugg ci dëkk bi. soxna yi ñoom seen jàmbat nee nañ benn la ndaxte bërëbu fajukaay di amuñu ko jigéen ñi nga xamante ni dañuy wanu lor bu ñu matoo dañuy am jafe-jafe ndaxte dañuy daw ay kilomètres dem ba mbooro di fa mën a faju ji. bërëbu fajukaay amuñu ci dara amuñu carte de santé amuñu dara ñun ñoo ngi ni Mboro la dem. nit bu amee doom fii dañuy bal pour ñu yóbbu ko Mboro rek problème la sondeel la taal. ak pétrole amuñu benn courant nag lëndëm nga ak ñuy bëgg a rey ku ñu dimbal na ci courant bii ak case sant santé bii wax dëgg yàlla moo ñu gënal moom. dëkk bu lëndëm këruus tax na am nañu njàqare ndaxte nee nañ bés bu nekk dinañ gis ay jaan ci biir dëkk bi. man mii ren ji sama tànk yi métti jaan ji ñëw ba fi sama wet mënu maa daw ma yuuxu nit ñi daw di kër na ki ñu rey léegi nag noo ngi ñaan nag ak leer. askanu sancum ndong ku ci nekk yor lampe pétrole wala sondeel ngir gën a màndargaal li nga xamante ne moom mooy seen tawat di ñàkk courant cadre port autonome bu Dakar dajaloo ci kuréel gi ñu naan ACAPAD euh, yitte woon nañ lool ëllëgu seen këru liggéeykaay googu ba tax na ñu ngi ñaax euh, kilifa yi ñu jàppale leen si waaye rawatina jafe-jafe yi nga xam ni gis nañ ko ci doxalinu euh, port autonome bu Dakar daal di nañuy amal ab conférence de presse becc loolu yëpp ci kanamu askan wi Sylvie Faye Youssou Baro teewe nañ ko. autonome bu Ndakaaru teg ab plan développement bu bees 2019 2023 wekk ko ci plan Sénégal émergent bi nga xam ne bëgg-bëggam moo di nekk moteuru émergence ci loolu kuréel bi ëmb cadre port autonome Dakar di interpeller chef de l'État ci dysfonctionnement yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci port. sensibiliser autorités yi ak président de la république ci ëllëgu port Dakar ndax tey jii ñu bañ ko ñu bëgg ko port mooy alawandaare ci sous région bi maanaam cinquième sur six Lomé mi nga xam ne kenn tudd ko woon tey moo jiitu ñëpp mooy premier port. kii di président ACAPAD nekk itam conseiller technique ci foofu ci port ba dellu si ci plan bi nga xam ne ñu ko teg ci ñeenti axe. kon ñun première bataille bi ñàkk nañ ko mooy base pétrolière bi bi ci des mooy suuf si joxoon nañu suuf si pour ñu pour lépp lu port loo liggéey ci parking camion yi. ci terre bu ñoo jox plantation concessionnaire yi yëpp pour jox ko loolu yëpp dañoo dañ ko jël di ko saa saaga di ko jox ay privé bi ci des nag bu mujj bi mooy port Bargny-Sendou bi ñu defee suñu pour man dañu woote woon ci maanaam la cartographie nationale portière maanaam port yi ñu nar a tabax yëpp pour ñu nekk benn ñu gis ni port Bargny-Sendou port privé la maanaam privé yi moo ko tax a jóg privé moo koy gérer yëfi privé la jël te kooku concurrence Dakar la. ngir relever yooyu les défis port autonome bu ndakaaru dafa war a dëggu mu teg ci itam am ndimbalu haute autorité yi ndaxte ñooñu di liggéey ci port gëm nañu ni que Dakar mun na nekk benn hub portuaire logistique ak industriel. Caaroy 44 ak euh, tirailleur Sénégal yañ fa boomoon ba léegi coow li des fi ndax euh, sëti ñooñu ñi ngi sàkku ñu dàmp leen ay ndàmpaay euh, kon ca ña defoon lu ñu mel waaye ñu jàpp yit nii dafa am lu ko waral lu bees lu ci feeñ enquête wu tukkee ci Arnel Mabron muy kuy gëstu ci wàllu histoire doomu France la ba tax na ay satupay Fall Mar Dieng ci leeral si ñeent fukki at nag muy dem di wër lan mooy dëgg bi ci massacre de Thiaroye bi amoon ci atum 1944 am nag ay parents victimes yu taxaw ngir nag ñu fay leen li ñu leen war a fay waaye balaa loolu moom mu ne faw ñu dekkaliwaat li nga xamante ne moo di dëgg mu dem sax ba indi ay preuves. j'ai découvert des circulaires très importantes. man mii ngeen di gis nii dama découvrir ay mbir yu am solo mën naa wax sax ne lii mën nañ ko tuddee mensonge d'état ndax dañu rébellion armée la woon ngir rek nëbb benn massacre bu doy waax boo xamante ne dañ ko def ci ñi nga xamante ne ñu doon tirailleurs yi ngir rek wàññi nombre rapatriés yi ngir mën euh, nëbb li nga xamante ne moom la ñu jot a rey ci ay nit laata ñu leen doon doog a euh, jenc ci cimetière yooyu ne ñu ne fa lañ leen jenc fi ñu leen jenc nag fosse commune bi nga xamante ne 44 lañ ko def ba tey sorwul ak autoroute à péage bi nekk ci wetu Thiaroye foofu nag ne nañu dañ fa suul lu toll ci soixante-dix tirailleurs historien bi nag ne faw ñu dekkaliwaat li nga xamante ni moo di dëgg. c'est important maintenant pour loolu nag moo war a tax nag ngeen xam ne mbir mi mbir mu am solo la ndax terrain bi nga xamante ne mooy fosse commune bi terrain bi fii ci Sénégal la nekk te nag man mii historien la te dama bëgg a xam ñaata nit la ñu jël denc leen fii bu ñu nag génneewaatee ñi nga xamante ne ñoom la ñu denc ci fosse commune bi. booy fexe nag ba ne lim gi moom lañ fi jenc ngir rek weddi nombre bi nga xamante ne réewum France jot na ko joxe. ça permettra de lii nag buñ ko defee procès en révision bi dinañ ko mën a pare. nit ñi nga xamante ne dañ leen condamné woon ñoom it ñu wax ne lii ñu leen condamné defuñu ko. ñu jël sax benn bande dessinée jagleel leen ko ngir rek. wane dëgg bi wane ko ndaw yi itam. c'est un peu l'histoire de gis nga bande dessinée bi nag sama histoire u combat la ndaxte man ak biiram Senghor ñun ñooy héros bande dessinée yi lu tax it ñu def ko ngir rek wane bu baax a baax lan mooy massacre de Thiaroye bi ak naka la tëddee woon. mort par la France mort pour la France. lii nag mooy histoire bi nga xamante ne Armel Mabron ak ay njëñam nettali nañ ko Aïssatou Faye yegsi nañ ci ponk bu mujj bi li ci réer na kay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. cirë ngeen jëf coowal caisse d'avance bu mairie bu ndakaaru ba léegi tëjagul ubbil l'observateur journal bi nee nañu tey jii ci la ñu koy tijjiwaat ci cour suprême bu tey jii mooy sànni tàccu ci xalifa ababacar sàll moo koy wakaam li ñu bëgg ba tax ñu dem ca cassation di ko fa clamé moo di dañoo bëgg daani ñu gàll ci ndoddal xalifa sàll ñu teggi ko juróomi ati kasa yu ñu ko tëj la bëgg ñu invalidé ko yéenekaay bi nañu aw ñañam moom xalifa ababacar sàll démb janoo nañu ne la ñuy lijjanti ci cour suprême dara mu mën a yàq ci candidature yu xalifa sàll voté présidentielle yi 2019 yi enquête yi ne kay nañu dëgg du rombi nopp jour de vérité finale ci Khalifa Sall mooy tey ji tey la góom di way dët sa baam way deret sa tey la lépp di leer tey la lépp yu féete boor ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ñi koy jàppal tànk nag mu di ay partisans moom Khalifa Sall nee nañu ak lu Cour suprême man di dogal ci yëf yi amul lenn lu mu mën a galfan ci candidature bu seen candidat bi di Khalifa Sall Cheikh Bamba a invalider candidature bu Khalifa Sall Khalifa Ababacar Sall mu sëgg bopp bi photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku laas yéenekaay bi bind ne ci bëccëgu tey jii la ak lëgëm di leer moom Ndakaaru ba woon source a ko te ma nga war a leere ca Cour suprême conseil constitutionnel juróom-ñaari sage ya fa a nekk seenum lip mat na Sud Quotidien moo ko wax léegi juróom-ñaari sage yemb nañu ca conseil constitutionnel ne juge Mouhamadou Diawara ak juge Abdoulaye Sylla ndakaaru yi vox populi nañu ab karawaan la doon def tuddee ko doxantu de sensibilisation waaye weex na leen xat police moo leen dogaale dóor leen ay lacrymogène tas ndajema nee nañu tey ji ci alxames ji ñoo nga jëm ci université Cheikh Anta ndakaaru dem gi si jeg foofee waxtaan ak ñoom waaye kilifa yu centre des œuvres universitaires bu ndakaaru mu di kudd nee na leen nañu bëreeg seytaane ba bu ñu fa teg seen tànk lu ko mooy les éco dañoo tasaaroo daw dugg ci mbeddi Medina yi Ousmane Sonko rek moo fa taxawoon dékku lacrymogène yi yéenekaay bi boole ko yu bàyyee ko ci Barthélémy Dias muy xam le ne gaañi bu leen neexe nañu ñu dóori ba seen xol sedd du ñu buuse mètre mu teg ci ne Macky Sall nguuram li ñu nekke jamono ji tayuñu ko dañoo tiit moom mi ñu naan dafa tiit di Macky Sall ngi ci xët mu njëkk l'Observateur yéenekaay bi nañu mook Nicolas Sarkozy ma jiite woon ne nangoo woon teew ci audience ba gisee boobee yéenekaay bi nañu mi ngi am ginnaaw ndajem groupe consultatif ba doon am ca Paris direct info xëy ci loolu directement mu di réunion groupe consultatif ba woon ca Paris ak li mu tuddee comptes et mécomptes de Paris lu ci nekk mu joxe ci ab takk takk leen ceinture yi débarraye lonk première tegu ci Ila Touba gi autoroute ba tey ji la ñu koy ubbi ubbi leen l'observateur El Hadji Abdoulaye Bamba Sall bu yéenekaay bi bind na fa ne tey jii ci ngoon ci leen jiitu réew mi Macky Sall di inauguré autoroute Ila Touba gi ci teewaayu xalifa général di murit moom sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sàkku na ci taalibe ñu mobiliser jox bés bi dayo bi mu yellool waaye nag teg lépp ci taalibe ndax autoroute bu ni mel Macky mi ko fi def Serigne Touba la ko defal di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ba lépp lu mu yéene ca Touba yàlla may ko ca ndam journal bi lañu lu mu gàtt gàtt juróom fukki million génnee nañu ko ngir transport bi ak li ñu war a berndeele gan yi donte xalifa bi nee a dem bu bu baax a député Farba Ngom la yabaloon ca njaareem mu dem waxtaana jeggaay ci accueil bi ak ni ñu bëggee mu demee ko jox leen fa fukki million ak ñeent ak genn wàll yi président Macky Sall joxe responsable local yi ca Touba it l'observateur nañu desuñu ginnaaw ci yëf yi ku ci mel ne Gallo Ba directeur général Sojib SA maire bu Touba Abdoul Ahad Ka Serigne Modou Bara Dolly ak soxna Maam Xari Mbàkke direct info kooku moom di soxna Maam Xari Mbàkke Muxtada wane na ci bés bi ne taalibe dëgg la sëtub Xaadim Rasuul tigi la bi xalifa bi bi ca la jàmmam jeex moom Saly Mbacké njiital Raziat nee na ndigal la ñu jot tey dinañ ko jëfe ba mu mat sëkk bëgg nañoo wan président Macky Sall ni képp ku yaakaar Serigne Touba rek bég na ci yow te it dinañu fay naar bi xoromam danañu fa wàcc ay kaamil jàng fay xasida ni ko sëriñ bi santaane teg nañu ñetti téeméeri watay bis defar juróom-benn junniy ti set dinañu fa segg ñeent fukki mbanay café ci njiital soxna Issa Mbacké axlul café fas fa yéene it sa teg juróom-benn fukki mbana ngir berndeel gan ñi bu ñu sukkandikoo ci soxna maam xaari Mbacké ginnaaw Ayda Mbacké mi ñu mandat dépôt di ko tuumal ne dafa taaloon jëkkëram Salimata Diaw mu ñu tëj juróomi at ndax dafa bëggoon a fees wu jëm Les Échos nee nañu am na jeneen jigéen ju aw yoon woowee ma ngóone la tudd dëkk ci yëmbal aseg na jëkkëram moo ko ne dafa am sama benn collègue bu nekk ca Shell ga may liggéeye dama ko bëgg a takk ñaareel yow laay may première njëkk yéenekaay bi nañoo dem na sax ba jël ñaar fukki junni jox ko ko muy takku dëndam ndaw si bàyyi ba jëkkër ji di nelaw mu jël paaka jam ko ko ci ginnaaw daw dem yoonam nañu daw dem ci l'observateur lu yéeme nga fa benn waaye bu ñu naan Aliou Ndiaye journal bi nañu tribunalum Ndar moo ko doon àtte ba tëj ñaari ati yàmbaa ci moom li mu wax gis bi nag moo di dafa asma te yàmbaa koy faj. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it jërë ngeen jëf ci seen euh, teewlu di gërëm Assoumane Thioub mi jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb ak euh, équipe bi yëpp di leen dox euh, jox dig daje ngoon incha allah ci yeneen i daje xibaar ci kàllaama Kocc waaye it ci français incha